abonneel gaaw ci sa chaîne bii di ASG production gi jot bépp xibaar bàyyi ko ci yoonu murit salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk talibé yi ñoo ngi ziar bu baax seen mbokk jibi ba di jëwrin Jazbul Xuloob ICAB ñu ngi fassiyé yéene jël ay kàddu di leeral ci li jëm ci liggéey bi nga xam ni moy Mawaahiboul akiyas don confédération bo xamné Cheikh Sidil Mokhtar Yalla suñu borom yokkee leen taasu si mooy ki nga xam ne moo joxoon ndigal si mboolem daayira yi nekk si université yi ak lycée yi ak sem yi ngir ñu dajaloo euh, ngir mën a yaatal liggéeyal sëriñ bi mel ni Akyaas nag ay mbiram sëñ moo tënkaloon lépp boppam si feuille de route yi nga xam ne ni jëmoon si maalum xam fexe woon tamit maam jokkale mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci université yi ak si sem yi ak lycée yi ngir gën a mën a ñoŋal liggéey bi mel ni bu ñu liggéey kat day mel ni si ñett na centré wu muy jëm si yi nga xam ne mooy téere yi nga xam ne ni sëriñ bi bind na ko fexe ba ni ñu nga xam ne ni yëpp waaye képp fépp waaye nekk si àdduna bi rek dina mën a jariñu si liggéey li mbind moom xam ne moom bindoon ngir xam ne ko si mboolem langue yi nga xam ne ni moo xam anglais moo xam français liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi sëpp solo bu loolu weesoo sëriñ bi joxal leen mooy màggal bi maanaam fexe bay taxaw ñi nga xam ne ñooy wàccee ñooy jàng alxuraan si penk jumaa ji si mooy si jullikaay it bi bu loolu weesoo xanaa congrès scientifique yoo xam ne dañ ko amal ngir te tamit am ne yaatu lay nekk yoo xam ne mbokk taalibe yi ak ay chercheurs yu mag a mag dinañ si dinañ si kon ñi ngi soññaat baax a baax si mboolem fu daayira nekk rek fépp fu murit nekk moo xam université moo xam sem la moo xam lycée la ngir ñu ñëwaat jokk si li xam ne mooy ndigal sëriñ bi nga xam ne nag sëriñ Sidi Moxtaar mooy sëriñ Tuubaa te lii nii mooy li mu bëggoon te lool la ñu teg te loolu ñun kat si lañ fas yéene wéy gis nga mbokk taalibe yëpp xanaa di gàttal kàddu yow cheytaan rahim bismillahi rahmaani rahim sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazir baraay barke borom Tuubaa kon ñoo ngi leen di siyaar mbokk taalibe kenn ku ne sa sa sant di leen baal ak tey tuubal mbooloo mi di joxe tur gi rek man la Omar Kanté secrétaire général Daara Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta Diop di yëkkati kàddu rek tey ci mbiru Maoul ak Yaas kenn ku ne xam na ne suñu borom daa dogal ba ñu sëñ bi woo en 2012 mu bokkoon ci daara yi nga xam ne les premiers daara yoo xam ne sëriñ bi da leen a woowlu woon ngir ñëw ci turu liggéey boobu loolu nag 2012 la xew sëñ Sidi Mokhtar joxul ci ndigal ci daara yi ak institut ak école privée yëpp ñu dajaloo ngir am liggéey goo xam ne dañ koy liggéeyloo ci yoon bi loolu nag di ndigal loo xam ne wàcc na suñu kaw ba tax na ne ko mbokk taalibe bu ndigal wàccee ci kaw rek loolu du def dara loolu jàllale xibaar boobu kon ñu xamee ko noonu ñoo ngi ci woo mbokk taalibe yëpp képp ku dégg suñu kàddu woo képp koo xam ne étudiant nga wala élève nga wala nga nekk ci institut privé wala public loolu mooy ndigal li nga xam wàcc na dox kon ñoo ngi mbokk taalibe yëpp ci liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aawuzu billahi samil alim min sharri sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyoo di ziar ñaanal Cheikh Mahamadou Muntaxa ibnu Cheikh Mahamadul Bachir sunu borom yàggal ko te wéral ko moom mbooleem njabootu borom Tuuba gi yëpp waaye di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo toog jotaayam maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ko nuyoo rek yóbbaale na mboolem ko aju ci lislaam di sant bu baax a baax a baax ci jotaay bi nga xam ne si nii moom lañu toog muy jotaayu daayira Masaalikul Jinaan ñun ñi di wax tudd Mouhamed Diop di jëwriñu liggéey bi mu mel ni li nga xam ni moom lañu jubloo waxtaane rek mooy li jëm ci confédération Mawahibul Akyaas nga xam ni mbooloo la moom Sëñ Sidi Mokhtar radiyallahu bi mu doonee borom Touba ci waxtu ci année la woolu mbooleem luy école ci université ak ci lycée ak ci primaire yëpp rek ba dajale leen te la leen ci benn mbooloo tuddee ko Mawahibul Akyas wax leen yoon wi ni jaar jox leen mbooleem loo xam ne mooy seen programme yàlla dogal liggéey boobu dox ba jamono ji ñu toll mu yaatu lool ba cellule yi àgg fu bare bare ba fii ci UCAD am cellule boo xam ne sëñ Abdoulaye Kay moo ko jiite ñun ñi ñu bokk ci bureau bi nga xam ne ñoo yor liggéey boobu yore fëte féete ci wàllu communication bi topp ci ginnaawam kon liggéey bi noonu rek lay wéyee ñuy wax ni cellule nationale bi Serigne Salihou Diagne mi nga xam ne mooy chef service social bu kudd mooy jëwriñu liggéey bi nga xam ne confédération Makiyaas fu mboolem fu mu am maanaam membre nga xam ne moom ay daayira ñooy ay membre am yëpp rek maanaam Serigne Salihou Diagne moom mooy seen jëwriñ yàlla dogal li ëpp ci daayira yi adhéré wu mën naa ne ci université bu Dakar lañu féete waaye noonu lañ ko amee UGB noonu lañ ko amee cees noonu lañ ko amee Diourbel noonu lañ ko amee itam ci yeneen gox yi ak ay Fatick ak yu bari daal kon liggéey la boo xam ni bu am am solo la Serigne Sidi Mokhtar nag bëggoon ñoo dimbali ak bëggoon a wan àdduna sépp ne ñi nga xam ne njabootu sëñ bi lañ tey jàng njàngum nasaraan it ci liggéey bi lañ bokk ci njaboot gi lañ bokk war nañ cee mën a bay seen waar ba loola waraloon mu sababoon doxal lii nga xam ne moom la doxal awale ko fi mu ko awale boole ñoog Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir jox ay cër yu rëy rëy ci biir yoon wi euh, du ci mel ne Màggal Touba ak yeneen ak yeneen activités yi nga xam dana am kon liggéey la bu rëy rëy boo xam ne mboolem kuy daayira nekk ci école wala nga nekk ci université moo xam public la wala privé la primaire wala secondaire wala universitaire yëpp rek war nañoo mën a ñëw jokk ci biir liggéey bi. mbooleem koo xam ne jokkoo goo ci rek jàpp naa ne jot na sëkk nga daal di aju ci biir liggéey bi bu ko defee boo jokkee waa secrétariat rek dinañ la mën a wax yoon yi nga xam ne fa la ñuy jaar ak ni liggéey bi doxe ni nga xam ne membre bu nu ci nekk daayira bu ci nekk bu ajoo ci mbooloo mi ni nga xam ne noonu lay doxe ndax dafa am ay points yoo xam ne moom la Sëriñ Sidi Muxtaar yoonal ne nañ ko ànd te kenn ku ci nekk wéyal liggéey bi nga xam ne moom nga yoroon sa biir daayira kon ndekete liggéey bi wàññiwut liggéeyub kenn soofantalut liggéeyub kenn itam jaxasewut itam liggéeyub kenn waaye dafa am loo xam ne lépp ñëpp la lu ne ku ne da caa nekk sëriñ bi bëgguñu ñu awaku yoon wi gën a gaaw looloo waral mu sos mbooloo mi ñun waa daayira Masaalikul Jinaan ci ndigalal sëriñ Saalihu Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu responsable moral ñu ngi xamal mbokki taalibe bi yëpp ne dugg nañ ci biir te dootuñ ci génn ginnaaw bi nga xam ne sëriñ bi joxe na digal li ba mu dugg suñu nopp mboolem yoon wuñ ko war a jaar it des na fa jaar lépp loo xam ne it activité la moo xam dafa laaj personnel wala mu laaj finance wala mu laaj len ak len yep rek insha allahu rabbi danañu fas yéene jaayante ak sëriñ bi suñu waxtu suñu guddi ak suñu bëcëk duul ko ci biir liggéey bi non lañ ci woo it mbooleem mbokki talibé yi nga xamné ne ñoo nekk ci manam daayira yi nekk ci biir université yeeg ci biir école yeeg ci biir manam privé beeg public bi yépp rek ñu gëna gorgol war gëna a nosuwaat ñun buñu takko takkoo laxasaayu doon benn danañ dem ba mbooleem li sëriñ bi bëggoon nos ko taxawal ko boppam Touba dana woy woy ba Sénégal gépp doon Touba loolu nag la koy def mooy ñun ñi nga xam ne ñoo yaakaar sëriñ bi te njàng-njàngum càmmooñ mi war ci ak ci yenn niveau yi ëllëg suñu borom war ñoo jox yenn post yi ñu waajal suñu bopp ci ak nosu ci pas-pas bu wér ci xam-xam bu leer bo xam ne danañu mëna a téye dëkk bi awale ko ci yoon yu ko sëriñ bi bëgg tek ko yépp ci xam-xam ta du doon xëccu doon werante doon dara waye lepp ci xam-xam lay doon akuk njub akuk dëggu akuk sellal ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi auzu billah bismillah inna waliyallah mbokk talibé ñu ngi leen di ziare di leen baalu xaq di leen di leen tuwaat baax baax ci kaddu yi ndongo li Abdoulahi Kébé lan koy wax doon jëwriñ DMS Nourou Daara daara des mourides scientifique waaye it jiite Mouawir Akiyas bu cellule ICAD ni ngeen gisee ci vidéo yi jàll ci yenn ci jëwriñu daara yi nga xam ne jël nañ leen ñu doon leeral liggéey gu rëy googu nga xam ne sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke moo ko sax joxe woon ndigal ngir ñu wéel ko moo xam waa daara Jësbul Xulóob la waa Majmaahul Nooreyn waa Tam waa Masalik ak mboolem daara yoo xam ne di ngeen ko di ngeen ko fi dégg wala di ngeen dégg ko ba lépp day tënkuwaat ci ndigal li nga xam ne sëñ bi digale ne ko muy jëm ci ànd booloo liggéeyal sëñ Tuubaa ñoo ngi soññaat suñu bopp di soññaat mbokk taalibe yi ñu bàyyiwaat xel lii di liggéey gi nga xam ne ndigal la murit nag lañ ko diggal wala lañ ko diggal da bokk ak la nga xam ne moo ko sakkul boppam liggéey gi ndigal la nañ leen ci bayyi xel xamne seigne sidi mukhtar Muxtaar mo won ko digalon ngir ñu bolo and liggéey seigne touba te ñu xamne kat barab bi ñu nek kat barab bu yeme la waye bolo kep mo doon nga xamne mo moo ci mëna dimbalé ba li nga xamne li nga xamne seigne bi bëgg nak suñu ñu mën ka ñu mën ka ñu mën ka défé ci nam waree kon wote gaa ngi noonee ndigal nak saay su joggé kala ko jox wacc na kala ko jotalit wacc na la des mooy jëf ak ñàkk jëfe gi loole ci yow mi koy déglu képp lay dese kon mbokk taalibe yi mbir maa ngoog woote baa kon nañ leen ko wësi